bi fukki waxtu ak ñaar jotee ba toftal juróom fukki simili ak juróom ci la arrivé ci aéroport bu São Paulo moom Moussé Soriki Kaba directeur de Sénégalaises de le l'extérieur tontu na nag suñuy laaj lu waral ay tànkam ci Amérique latine. jërë ngeen jëf di leen sant d'abord euh, ci accueil bi et puis di leen baalu ak ci retard bi euh, je crois que tànk yi du tànk wu dara lu dul message du président de la République bu ñu andil. communauté sénégalaise bi nga xamante ne ñoo nekk ci Amérique du Sud yëpp. parce que comme ni nga ko xamee bu nu ñëwee euh, démb Brasilia te moo nekk sunu première daje fii ci Sao Paulo bu nu fi jógee continuer Porto Alegre bu nu fa jógee continuer Buenos Aires doog wàccaat Brasilia pour rencontrer sénégalais yi nekk foofu donc li ñu tax a jóg mooy ñëw waxtaan ak ñoom déglu leen mais également indi leen message. ba pare nag xool lépp loo xamante ne jafe-jafe la fi ñu koy jànkonteel ñu xool ban solution lañ ci mën a indi parce que fu ñu fu ñu jógee rek pour andi solution moo ñu tax a jóg moo tax léeg suñu jóg du gaaw mais bu ñu jógee rek am ci yaakaar. Eh, tontu na it suñuy laaj jëm ci lim bi nga xam ni bu takk la lool ci ay doomu sénégalais yu faatu ci Amérique latine bi ci ay at yu néew. je crois que prévoir nañu ci ci euh, ci euh, séjour bi ñu rencontré. mbokk euh, kilifa yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Brésil comme ci Argentine ngir waxtaan ak ñoom ci mbir yu mel noonu euh, du doon rek loolu kese mais entre autres question lay doon dina am yeneen mbir yoo xam ne dañ ko séq ak ñoom pour ñu xool yooyu xew naka lañ ci mun a àndee ay solution durable ba pare li jot a xew aussi ñoom lan lañ ci jot a def comme jéego ñu war ko mën a andil comme message aussi communité bi pour won leen également que distance bi sori na lool waaye gouvernement bu Sénégal mi ngi bàyyi xel ay yi nekk fii ñu war leen xamal loolu également pour ñoom ñoo xam ko. tontu na it ci suñuy laaj ci lu jëm ci Argentine ngir mu am ambassade ak consul. comme je crois que président la république mu ngi liggéey bu baax mook le ministre des affaires étrangères je crois que liñ ciy wax nag du bari bu boobaa mais liñ leen mën a xamal rek mooy ci diir bu gàtt incha allah solution dana am ci loolu.